maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam nuyu boobu nag wax naa ko ci français jiital naa ci gouverneur teg ci préfet yi ak sous-préfet yi ak maire yi nga xam ne ñoo fi teew yëpp ak maire Kaffrine bi nga xam ne dafa bàyyi lépp nu mu doon def bu ngeen di nuyu également député bi nga xam ne moo fi toog yaay daw jóg di sama doom bàyyi di sama xarit di sama lépp ndax duñ toog ñaari fan te téléphone di nuyu chef de village bi ak imam bi di gërëm ñi fi wax ñëpp di gërëm tonton Birane Dem bi nga xam ne moom may accompagner ci politique bi ndax yàgg na di ma digal rek lu baax di gërëm jigéenu Koungheul yi nga xam ne 6 heures du matin lañ yeewu ne il faut ñu ñëw mu jaral leen ñu cotiser jël bus bi jël ay gaar ndax bi ñu yore taxaw li ma ci taxawal mooy fay bus bi ñu ne fay nañ ko kon nag xam ngeen ne bëgg na. foofu la man a yem waa yaakaar naa ne du man lañ bëgg waa waa kër Malick Ndiaye yi ñoom lañ yërëm ñoom lañ bëgg moom. di leen wax ne nag lii ma def nii wax nañ ko ba pare sama wax dootu ngis tan taxul ma def ko mais yàlla rek moo tax may def ndax xam ngeen ne man kër Malick Ndiaye tey laa fi gis moo fa teg tànk kàccoot nag ñëw naa fi ndax seen salle de classe yére yi ñu fi dëkk rek man maa ko tabax. xam naa ne dañ ma xamal tuuti ndax boobu dama da gënoon doon xale di sol pantalon di takk ay casquettes doon coordonnateur technique régional des constructions scolaires de la région du Sine di leen wax na nag maa ngi massawu lii dal leen waaye nag da ngeen koy féetale rek ci ndogalu yàlla ndax yàlla moom lépp loo xam ne nii dal na jaam bi rek su fekkee ne gëm na ko dina ne yàlla moo ko def te xëy na di ngeen am leneen lu ëpp lii ma def nag sama ñàkk laa ko jëlee dama bëgg mu leer sama salaire laa ko jëlee ni ma ko doon defee. ndax son excellence le président de la république dafa ne nañuy nekk toujours ci wetu askan wi di leen lépp loo xam ne métti na leen taxaw ci balaa mu ñëw surtout ñun ñi nga xam ne daf ñoo takkal ay ndombo ndax. président am na naa la waaye su ñeneen ñi ñëwoon dañuy am reconstruction wu village yu Kër maa ngi ñaan képp koo xam ne kii mën nga ko que joxe ci xol lay sax na nga jàppale waa Kër Malick ndax du ñoom sax ñoo fi lakkale rek jàppale tudd bi yëpp. ñi nga xam ne dañoo yàqule yàqule ci lakk yi yàqule ci nawet bi di leen wax ne nag moo taxoon ma ne tey jii comme waa Kaffrine yi bu fi député bi taxawee rek moo fi taxawal askan bi maire baa ngi fi waa Koungheul yi kenn desul Bennoo Bokk Yaakaar kenn desul maa ngi leen gërëm di leen sant moo tax bi ñu joxee parole ma ne nañ jox waa Bennoo Bokk Yaakaar parole ñu wax hélas tool wax si si mais dama bëggoon ñu def fi benn fondation kon ni ñu defee yeneen fondation yi fondation Marème Faye am na yeneen fondation bu ñu fi defoon fondation bi kon lii du yéex ndax man dama demoon bitim réew dëkk nekkoon ba mu amee laay ñëw wala premier ministre bi muy ñëw du fi bàyyi. waaye bi ma demee ma ñëw lañ ma ko wax ma rafetlu li nga xam ne moom la fi def Macky Sall sant ko ko te lépp lu ma ci dugal rek man dinaa ci dugal sama loxo Macky Sall fondation bi nag maa lay ñaan yaay ndaw. maa ngi ñaan Ablaye Wilane mi taxaw ak waa Benno Bokk Yaakaar nag yëpp taxaw nañ leen taxawal fondation dem di uti di andi di ci dugal ku am problème ñu ci jox la balaa kenn ñëw fondation bi mun nañ dem sax ba sapeur pompier yi dem ba yokk ñu def ko teg fi oto boo xam ne day def ndox ñaanal ko yàlla lu mel nii bu amee it bu fekkee yàlla def na koy yàq-yàq maa ngi di gërëm di leen sant di ci ngërëm mi monsieur le bi nga xam ne moo gën a doon gën a doon ndaw ci gouverneur yi li ci tegu nag dama ko ci parce que nee nañ c'est le waxee ba léegi bàyyiwuma heure bu ne dama koy téléphone te heure bu ko téléphoné muy yëkkati tam xam-xam lu ma ne ma defal nii defal naa defal naa di gërëm aussi Ablaye Wilane mi ngi toog. la ndax Ablaye dafa ma xelal ndax man dama jëloon bu bëri mu ne ma de buñ te amuñ suñ tëdd problème day am. man nag jëndal ma boobu man laay naa la. waa Koungheul bi góor jigéen mag ak ndaw yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant tey j'étais ému ba dama leen a nuyu rek daw duggaat ci biir ndax sama rongo yi dafa wadd ndax xam naa ne da ngeen ma bëgg te bëggante wu leen maa leen di gërëm di leen sant. ñaanal yàlla yal na la yàlla delloo wax jàmm Koungheul te yàlla bu seytaane jaar suñu diggante yal na yàlla yàggal ànd wax nag dafa yombul maa ngi leen di gërëm di leen sant bu dee naa ngeen baal ma wasal